mbokki Sénégal mbokki réew mi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 Coucou, hello Mega, mes amis, c'est Rita Paradima Saiba, Lago Faramaren qui est là parmi nous. yéen a ngi ànd ak suñu ci TV ci ay chroniqueur Rita comme nu mu koy defee saa su ne ah ndeysaan lii moo tax xeexu jàmbur kenn du ci dugg nee naa la xeexu jàmbur boo ca duggee rek dang cay des ndax nit ñi ñoo gëmatul seen bopp wóolootuñu seen bopp te gëmatuñu yàlla ah yow da ngay am sa problème ñu nekk di la régleel sa problème nga daal di rocceekuwaat ndànk rek ah daal di changer avis daal di ne baal naa ña nga xamante ne ñoo ma defoon loolu ndax Sénégal dañu mën a masla mën a daal di ne garaawul chaque fois dañ lay def dara nga ne waaw garaawul daal di noonu léegi yow ña duggoon ca xeex ba ña duggoon ca combat ba ña nga xamante ne ñoo la doon jàppale ak ñi nga xamante ne ak ah, ñoo takku woon rek di la xeex xeexle xeex ba rek nga daal di rocceeku ndànk rek daal di leen bàyyi ca xeex ba ak guerre ba rek daal di leen fay bàyyi moo tax xeexu jàmbur daal di ci dugg nee naa la wóorul kon ñuy xoolaat bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne moom la ñuy dugg ndax bu ma sama jàngat naxul rek ah ci diggante Miss boobu nga xamante ne moom lañ fi doon wax ay mbiram a dafa mel ni yëf ya dafa commencé di tourné waat bul ba di tourné waat rek a mu mel ni ñoom dañoo commencé di naan ñu ngay jéggale ak ñu ngay baale tànka bàyyi wuñu jéggal naa la ak bal naa ak suturaak dugg na fii génn na fii dëkk bi du du du mës a réglé te ku fi tooñ tamit dinañ la tooñaat wala ñu tooñaat sa mbokk ndax maslaa bi moo bëri yow ñu ngi la def liñ la def ba pare nit ñi di la xeexal nga bëgg a rocceekuwaat ndànk rek daal di bàyyi ña la doon xeexal ak xeex ba rek ah naan da ngay ak da ngay baale donc man daal tey sama ay chroniqueur daal ci loolu la doon wax mooy daal xeexu jàmbur balaa nga ciy duggati daal xoolal bu baax a baax a baax rek ah ndax dina mën a continuer ndax Sénégal gëmuñu dara yàlla mi ñu sàkk sax gëmuñu ko moo tax duñ ko wóolu yenn saa yi du ñu gëm suñu du ñu wóolu suñu bopp dañuy dem ba ci biir ah di génnee ay jikko maslaa ak dugg na fii génn na fii bàyyi leen maslaa bu ëpp bi moo leen di yàqal ci lu bëri nit bu ñu la defee dara da ngay dem au fond dem jusqu'au bu bu reculer parce que ñi nga xamante ne ñoo top sa ginnaaw di la xeexle ñooñu ngay xool ñooñu boo reculer rek da nga leen di ridiculiser parce que ñoom dañu jëloon volonté pour xeexle la yow nga jékki sar nan dangay ngay baale ak da ngay maslaa Sénégal doy na waar doy na waar tey samay chroniqueur ci loolu la doon wax ah di wax bu kàddu yu ñaawee rek maa ngi jégalu I love you so